asalaamaaleykum man la Kat di leen invité waat fii ci sama waañ Kat Diatta's tey nag Maroc la ñuy dem ñu togg seen recette bi ñuy wax chicken tagine nañu tàmbali tagine nag mooy seen cin biñ koy toggee waaye façon yi bari na yàpp bu la neex mën nga ko toggee mën nga ko toggee jën mën nga ko toggee crevette suñu ingrédients yi ñiy soxla tey moom lay xolli nii moom laa leen di won tamit nii ci écran bi dinaa leen ko bindal yépp ci description box bi verre bi ma leen njëkk woon nag mu am ay limon ci biir seen limon bi ñu ciy def la limon bu forox la dañ koy euh, def ci pot yi noonu di ko jaay moom laa doon xolli noonu ni gis ngeen ma dama ko dagg-dagg yu sew dama koy def ci ginaar bi mariné waale ko xolli ji nag ci kanam lañ koy soxla reer bu gaaw la gis ngeen lépp lañuy mariné ndoo ci ginaar bi benn yoon gaaw na neex na torop sax di leen fàttali rek nag bu leen di fàtte di follow Kadiata's Kitchen on TikTok am na video yoo xam ne dama koy dugal foofu te nekkul ci YouTube bi di leen jaajëfal bu baax léegi marine nañ suñu ginaar ba pare dañ koy teg mu noppalul tolloog une heure de temps suñu tajine baa léegi nag dañ ciy def tuuti dëwlin bàyyi dëwlin bi ba mu xaw a tàng tuuti tranché nañu suñu soble ba pare moom la ñuy jiital léegi xam nga ni soble bi moom il faut ñu mariner ko tuuti dañ ciy def tuuti poudre soble bi ak euh, laaj ak poivre ak euh, chicken bouillon mooy euh, marinaatu chicken bi ginaar bi moom laa leen di won ni te dinaa leen ko bindal ci description box bi yépp bu ma paree incha allah léegi dañ koy jaxase tuuti rek. commencé nag ranger la ci suñu ginaar nee naa leen reer bii dafa gaaw raxas naa sama pombiteer ba pare dama ciy def pombiteer bu la neexee lojum boo bëgg nga def ko ci raxas naa ko fomp ko ba mu wow pombiteer yu ndaw yi moom laay utiliser tey moom moo nekk nii léegi dama ko ciy ranger noonu soble bi desoon na genn wàllu beneen soble bu ma trancé woon moom laa ci ranger nii yépp lépp laay defandoo boo rangé yëpp ba pare nga jël tuuti dawlinu olive bi nga suy ci tuuti dawlinu olive lay toggee waaye yow mën nga toggee dawlin bu la neex léegi nag dañ koy tëj liñ ko tëjeek léegi am na une de temps ak 15 minutes ñu suy ci suñu persil suñu xollitu limon yi ma leen doon wax sànq moom laa ciy teg nii pour décorer ko ko boo ci ko ci bëggul mën nga ko ci bañ a def dañ ciy def olive boo bëggul olive mën nga ko ci bañ def waaye olive bi neex na ci torop nag togg na nga wàññi sa bi ba mu wàññeeku ndax boo ko xasee ba tëj danga ko fay bàyyi noonu mu ubbee nga dem defi leneen boo bëggee reer bu gaaw la waxoon naa leen ko sànq lépp ngay boole rek boo amee temps nag defaral mburu marocain yi nga boole ko ci man dama amul woon temps tey moo tax defaruma ko beneen mburu bi lañ koy booleel bu la neexee sax nga boole kook ceeb di leen jaajëfal ba beneen yoon fii ci Gadji's Kitchen